asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy teewlu yëpp si turu Serigne Amdi Fall mi toog di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, sëriñ bi wax na ne mi ngi nuyu Cheikh Modou Mountakha kilifaam gi di ko siyaare di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu njabootuk Sëñ Tuubaa gi ak njabootuk Cheikh Fall gépp gi mu bokkal liggéey bii nga xam ne euh, si lañ nekk te di ko taxawu. Euh, di sant ñëpp nag si lii ñu jiitu ak fii nu toll euh, te di am yaakaar bu baax si lii nu dëgmal ñu wax di di di soññee ak di feddali rek di wone euh, xolam bu sedd si taxawaay bi nga xam ne murid yëpp am na ko si ndigal yi nga xam ne moom la ñuy taxawu mu bàyyi ko sëñ Tuubaa te rot ci moom kenn ku ne xam ne fii nu toll nag ñu ngi ñu ngi toll ci ndigalu tabaski yi muy saytu ko war koo yët jëwriñam de di Cheikh Modou Mountakha liggéey boobu nag sëriñ baa ngi si woon boo ba léegi ñi ñëw fii di fi teew xam nañ ni mi ngi fi di ko taxawu te dañoo àgg si nag war koo jël nag yóbbu ko nag jébbal ko nag Cheikh Modou Mountakha euh, sëriñ bi jàppoon ni alxames incha allahu bëgg na nu yóbbu ko jox ko sëñ Mountakha te nanu ko baaxoo def rek daaw nu yóbbu xar yi te waajaluñ leen ba nu mel nanu nu war a mel looloo taxoon mu ne woon nu def ab woote. si murid yi nga xam ne noo féete fii ñoom ñëpp rek ñu daje fi àllarba muy suba incha allahu ñu waajal xar yi sang leen ba nu set wécc ba ñu mel nanu war a mel ba ñu taaru mel nanu ni nga xam ne dina méngoo lu jóge kër Cheikh Rafal jëm kër sëñ Touba su ko defee bu nu xëyee incha allahu sa ëllëg sa di alxames ah, moom it ña nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn jox leen ndigal nu yóbbul ko xar yi jébbalal ko ko sëriñam ba ñoom ndigal loolee jot nañ ko te xam nañ nu nu koy taxawoo waaye nun murit yi nga xam ne daal mën na noo ñëw fii suba incha allahu àllarba nañu fi daje. su ko defee ñu sang xar yi ba nu set wicc ndax day liggéey boo xam ne du liggéey bu ndaw ndax lim bi da du lim bu ndaw kon nag dafa laaj murit yëpp nag tabal si seen seen seen ñaq seen doole looloo waral sëriñ waxoon ni nan woo murit yi su ko defee képp ku jot si xibaar bii rek nga xam ni suba si àllarba ji bu nu xëyee suba teel danañ tàmbali liggéey boobu taxawu ko ba jant bi so waxtu bu àggee rek nu ñëw sëriñ bi ñaanal nu nu daal di dellu nag sa yitte ya nga xam ne moom sa lañ ne woon kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan lii nu malit yàlla nañ si am ndam nu weesu yañ daa am sëriñ bi nangul nu ko te ñi nga xam ne accès gu noot suñu borom def nu accès ak jàmm seenub liggéey na nanu bëggee rek mu amee ko noona barkeb Cheikh Ibrahima Fall ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa ak njabootu Cheikh gépp ak jëwriñam yëpp suñu boroom yàggal leen fi te wéral leen te mottali seen yéene barkatu rasulullahi barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf